mbokki taalibey cantaakoon yi ma wax te di jotal ndigalam ci mboole seen cantaakoon yi mi ngi wax ni mboolem fu cantaakoon mën a ne nee na digal na la nanga nga di ñëw daa di jël sëb cir ci màggal gi te boo noppee foo mën a dëkk ci biir réew mi lum sori sori nga dellu fa te dundal màggal gi ci sa biir këru bopp te nee na nga dëppale ko ak ni ko sëriñ Muntaxa digle mbokki taalibe yi nga xam ni jot nañoo ñëw ci biir dëkk bi madinatu salaam ngir màggal si nee na digal na mbokki taalube yooyu yi nañu daal di dem jël seenub cër ci màggal gi bu ñu noppee ñu takkaat seeni bagage fépp fu nu mën a dëkk ci réew mi nee na nañu fa dellu dugg seeni kër te màggal fa màggal gi te dëppale ko itam ak ni ko sëriñ bi digle nee na moom ci boppam moom soxna Ayda nee na màggal gi mi ngi ko fas yéene dundale biir këru boppam ànd koog njabootuk boppam gisus ci moom te nee na dëppale ko it ak ni ko sëriñ bi digle nee na kon ndigal loolu mu fas yéenee defe noonu mu koy defee nee na digal na ko mbooleem cant ak yi kenn ku ci nekk foo mën a dëkk moo xam mbuur la moo xam ndakaaru la moo xam cees la moo xam tàmba la fu mu mën a doon ci biir réew mi ak képp ku fa mën a nekk di ab cantaakoon nga ñëw ci biir dëkk bi nga nga jël sab cër ci màggal gi soo noppee nee na nga daal delluwaat fa nga dëkk nag nee na nag nga daal di fay dundale màggal gi te dëppale kook ni ko sëriñ bi digle wax jaa ngi noonu kon na ñëpp ñëw jël seeni cër su noppee fu waay mën a dëkk ci biir réew mi moo xam Tamba la moo xam Ziguinchor la moo xam Thiès la moo xam Dakaaru la moo xam Mbuur la foo mën a ne nga ñëw jël sab cër soo noppee nga delluwaat sa sa kër ga nga dëkk sa dëkku bopp nee na nga dundal fa màggal gi màggal ko fa te dëppale koog nag bëgg-bëggu sëriñ bi ndax moom soxna Aida nee na këram moom moo fa fas yéene ne ak njabootug boppam te di ko fa dundal nee na it wa digalul benn taalu bi nga fekk si ko biir këram naan da ngay ànd ak moom màggal gi na ko ku ne defee fa nga dëkk wax jaa ngi noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi koy ñaanal moom soxna da mu yàgg fi lool te ànd ak wér nuyu mbokki taalibey cantaakoon yi ma wax te di jotal ndigalam ci mboole seen cantaakoon yi mi ngi wax ni mbooleem fu cantaakoon mën a ne nee na digal na la na nga daal di ñëw daal di jël sëb cër ci màggal gi te boo noppee foo mën a dëkk ci biir réew mi lum sori sori nga dellu fa te dundal màggal gi ci sa biir këru bopp te nee na nga dëppale ko ak ni ko Serigne Mountakha digle mbokki taalibe yi nga xam ni jot nañoo ñëw ci biir dëkk bi Madinatu Salaam ngir màggal si nee na digal na mbokki taalibe yooyu yi nañu daal di dem jël seenub cër ci màggal gi bu ñu noppee ñu takkaat seeni bagage fépp fu nu mën a dëkk ci réew mi nee na nañu fa dellu dugg seeni kër te màggal fa màggal gi te dëppale ko itam ak ni ko sëriñ bi diglee nee na moom ci boppam moom soxna Aida nee na màggal gi mi ngi ko fas ne dundale biir këru boppam ànd koog njabootug boppam gisus ci moom te nee na dëppale ko it ak ni ko sëriñ bi digle nee na kon ndigal loolu mu fas ne defe noonu mu koy defee nee na digal na ko mbooleem cant ak yi kenn ku ci nekk foo mën a dëkk moo xam mbuur la moo xam ndakaaru la moo xam cees la moo xam tàmba la fu mu mën a doon ci biir réew mi ak képp ku fa mën a nekk di ab cantaakoon nga ñëw ci biir dëkk bi nga nga jël sa cër ci màggal gi soo noppee nee na nga daal di delluwaat fa nga dëkk nag nee na nag nga daal di fay dundale màggal gi te dëppale koog ni ko sëriñ bi diglee wax jaa ngi noonu kon na ñëpp ñëw jël seeni cër su noppee foo ay mën a dëkk ci biir réew mi moo xam Tamba la moo xam Ziguinchor la moo xam Thiès la moo xam Dakaaru la moo xam Mbuur la foo mën a ne nga ñëw jël sa cër soo noppee nga delluwaat sa sa kër ga nga dëkk sa dëkku bopp nee na nga dundal fa màggal gi màggal ko fa te dëppale koog nag bëgg-bëggu sëriñ bi ndax moom soxna da nee na këram moom moo fa fas yéene ne ak njabootug boppam te di ko fa dundal nee na it wa digalul benn taalu bi nga fekk si ko biir këram naan dangay ànd ak moom màggal gi na ko ku ne defee fa nga dëkk wax jaa ngi noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi koy ñaanal moom soxna Aida mu yàgg fi lool te ànd gu